Acis benn boiler bu dubalees jur ak baax yaay. kuy sa mag. sama mag. Balla Gaye de. taxaw sa mooy Bada Faye. kuy Bada Faye. <laughs> Bada benn champion la rek déggoo ak samay waajur ak ñoom père alu ñoom père Mbaye ñu jàppale ñi nga xamante ne ñoo nekk seen doom di ñu jàppale daal di ñu gunge parce que tamit ñu ngi ci sant yàlla baal. xam nga ki ngay dajal. waaw am na lu ma xam ci moom. ki ngay dajal mooy kan. timbal masi. kuy timbal masi. mooy Moussa xam nga ni Moussa Dioum képp kuñ ko jox doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg. ah li ñuy dajee ku ko daj ko ne di nga nelaw. waaw loolu moom xam naa ko. PAM moom ku ci dem ba dugg ci rek xam ne bu ci séntu lu yomb. man ba may dugg ci làmb xalaatu moom lu yomb na ci am. moo tax bu mu méttee du ma bett. eh timbal ma si su ma la jàppee di nga xam ni du ma sa morom man maa la man maa la ëpp doole maa la dàq bëri fuuf bu xeexee ma daan ko su bëree ma daan ko dafa laa mën a yem fi ma ko teg mooy suñu entrement ak mbirum yàlla suñu borom samay ñaanu waajur fa laa ko teg du ma ci am leen lu ma ci teg combat bi man maa ko gën a fonk moom fukki junni yoon moom mi ko jël xam na loolu ma daanee fu ma jëmee moo ci ana ana waa rek ñun suñu école bi kiy toog ci taxawaalu nekku fi ni ñi liggéey pour li ñuy jëriñ ëllëg la man li ma lu ma capable ut sama làmb am lu ma ci lu fas yéene def te loolu gëm naa ne Moussa Dioum du ma ko teree def man loolu maa ko wax. lu ma ko wax lu leen ñi ko ñaanal jàmm ak salaam comme bis bu des soreetul ñi ngi ñaan yàlla jàmm am senegal bool ko gi mboolum julit di ñaan yàlla yàlla may man dam ci ko Moussa Dioum man loolu dong laa ko wax sooba yàlla ndam la ñuy yóbbu amul sax li ñuy toog di sikki di sikki sàkk ma lan laay xalaat ci keneen mais du kii moom ko dalee ci grand combat bi petit combat yi kenn du ma fa ëppale supporter loolu man maa la ko oxygène te jour laa ma ji ngi ci xam dara man du Kër Massar laa am am naa Kër Massar am naa géej waaye am naa parcelle. ak feneen ay Casamance Kër Massar Oum yëmbal benn baraag Malika. looy tudd Casamance di wut wàllu. fa laa dëkk. looy wut wàllu. sama papa fa dëkk sama yaay fa dëkk man yuuxuma wàllu samay nit fa dëkk samay papa fa dëkk samay rakk sama wet Casamance samay mbokk dëkk man yàlla def na samay supporter dañoo sérieux lamb ba ma dara ba ma dalee bëri ba léegi kenn mosu cee gis si côté Sa mu ngi xeex wala agresseur wala affaire yooyu ba ñaax ba su ma amee combat dañuy dimanche ñoom ñëpp ay bokk réunion waxtaan ni ñuy demee te benn benn man da bu desee ci ay problème moom bu lañ ci seen sama supporter loolu moom maa ko jugé aw ma supporter bu yàq man ñiy defar laa le 8 juillet di woo samay mbokk samay am di jàmm ñoom Grand Moussa ci wet bi di woo ñoom Fallou Daas di woo Mass Gilaay ak Père Bokar man daal maay woo ñëpp di woo sama papa di woo ñoom bu ñu ma ñu ñëpp waa bi tamit leen sant di leen gërëm parce que tamit ba bépp dama dalee bëre ba léegi ñu ngi may jàppale temps à temps am na yoo xam ne ma fi mag mais bëriwuñu gis nga ne ñoom ñoo nekk nii fii amul benn grand boo xamante ni mën na kii mais ñu ñëpp benn lañu di la ñaanal man it fi ma toll yàlla nañ ma dépassé ñi bëri ay combat combat am na ñu bëri woon fan yi di daan di ñaan yàlla ñuy wàllu ñeneen ñu yokk bu déwénee yàlla may ñu yeneen combat yàlla may ñu ci ndam